xam ngeen ni comme toujours di leen ampleur fi nga xam ne moom mooy point coronavirus nga xam ne chaque jour dinañ ko amal fële nga xam ne moom mooy ministère de la santé tey nag daal dinañ annoncé 91 nouveaux cas yu dolleeku ci lim bi nga xam ne amoon nañ coronavirus ci biir 91 yooyu 87 ñoom ñoo si ay contact maanaam ñoo xam ne dañ leen topp ba xam ne dañoo jëflanteeg ñu am coronavirus ñu daal leen koy wàll 4 ci ñoom di ay communautaire cas communautaire nag mooy ñi nga xam ne xamuñu fa lañ jëlee li nga xam ne moom mooy doomu jàngoro ji ñoom nag ñi wér nañ te dinañ dellu fële nga xam ne moom mooy seen njaboot 4 cas grave mag ak mooy ñoo xam ne seen cas dafa critique maanaam instant yi dañoo daal di sonn loolu nag nekk nga xam ne ñoom ñooy jaay lekk maanaam di jaay li nga xam ne dañ koy jëfandikoo ngir lekk ko léegi ñetti fan la ñu am droit jaay ci semaine bi ñetti fan yooyu mooy lundi mercredi ak vendredi ñeneen ñi nga xam ne jaayuñu li nga xam ne moom mooy lekk maanaam dañuy jaay leneen li nga xam ne bokkul ak lu ñuy lekk ñoom ñaari fan la ñu am droit jaay ci semaine bi ñaari fan yooyu moom mooy mardi ak jeudi li nga xam ne moom mooy week bi nag di samedi ak dimanche kii di préfet de Dakar dafa di décider ni dañuy daal tëj marché yi loolu nag nekk benn dogal bu bees boo xam ni préfet de Dakar daal ko ci marché bi li nga xam ne moom mooy coronavirus ñu daal di wax ci leneen wax ci problème bi nga xam ne moom mooy TFM ak waa 2STV lii ni wax ne yaa awa moom moo daal di jël seen émission yóbbu ko fële nga xam ne moom mooy TFM di ko fa def wax ji bëri na coow li plainte amoon na ci parce que ki nga xam ne moom mooy El Hadj di patron bu 2STV dafa porté woon plainte euh, yaa awa porté plainte Bouba Ndour porté plainte ki nga xam ne moom mooy Amadou Kouyaté di caméraman bi nga xam ne moom awa ki nga xam ne moom mooy animatrice bi nag di yaa awa jee demoon na wuy ji fële nga xam ne moom mooy police ci information yi nga xam ne seen news jox na ko daal dinañ koy entendre pendant quatre heures de temps loolu nag di benn information boo xam ne jot nañ ko ci problème bi nga xam ne booba tey yéen a ngi koy dégg ci diggante yaa awa bu TFM ak ñële nga xam ne moom mooy waa 2STV ñu wax toujours ci information yi nga xam ne ñoom ñoo lié ci Covid 19 bi xam ngeen ni ki nga xam ne moom moo Mamadou Talla di ministre de l' dina daal di ubbi juin bi nga xam ne ci leen jëm loolu waral ñu daal di koy invité fi nga xam ne moom mooy plateau bu jàkkaarloo foofu nag ki nga ne moom mooy journaliste bi di Pape Djibril Fall daal di nay nakarlu bu baax li nga xam ne moom mooy de l' éducation parce que nee na communiqué yi muy def waru a jàkkaarloog li nga xam ne moom moo am loolu nag di ay propos yoo xam ne ñu ngi tukkee ci ki nga xam ne moom mooy journaliste bi di Pape Djibril Fall jëmale ko le ministre de l'éducation de Mamadou Tala. jamonoy weeru koor bi nag daal ngeen seetlu li nga xam ne moom mooy émission yi daw ci différentes télé yi nga xam ne ñoo ngi Sénégal heure bu ñu ndogoo ba pare di nga xam ni moom mooy jëkk def initiative boobu moom mi ngi nakalu bu baax toppandoo bi nga xam ne yeneen télé yi ñi ngi koy toppandoo parce que moom mi ngi jàpp ni loolu plagiat la neneen nañu fay droit d'auteur ñi nga xam ne ñoom ñoom ñooy waa TFM parce su nekkoon ñoom ñoo ko def seen directeur yi dinañ porter plainte ñi nga xam ne moom mooy droit d'auteur loolu nag nekk cri de cœur boo xam ne moom mooy Pape Cheikh moom ak ñaari doomam ñuy nekk di jouer li nga xam ne moom mooy Ludo loolu nag daal indi polémique bu rëy fi nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi ñii ànd ci parce que ñi ngi jàpp ni président Macky nit la comme yeneen nit yi dafa war a passé euh, temps ak ñi nga xam ne ñoom ñooy famille am ñeneen di ko nakarlu président de la république waroon na leneen lu dul toog di def li nga xam ne moom mooy lu avis dañoo daal di ci photo yooyu nga xam ne ñi mi ngi circulé sur le net waaye nag li ñu si mën a xam mooy photo yooyu mi ngi def li nga xam ne moom mooy buzz bu baax fi nga and you double. lu ci gënoon a fës nag nekkoon li nga xam ne moom mooy coronavirus jàngoro jooju nga xam ne mi ngi ci biir Sénégal ñu toftaloon ci xibaar yi nga xam ne xew na fi ginnaaw jàngoro ji di coronavirus ñu leen di wax comme toujours ngeen continuer di topp directive yi leen personnel de santé bi di digal ngir mucc ci feebar bi nga xam ne moom mooy Covid 19 ndax jàngoro juy lore continuer leen di topp limametti.com nag ngir am information nag information bi limametti.com a permettre ngeen mën a am xibaar yi Thank you.